marché bu bees nekki fële ci diwaanu Wakhinane Nimzatt askan ba fa yeewoo jamono ji ñoo ngi nooyi bu baax a baax li ko waral ka fa nekkoon amal ay ñawteef police teg na ko loxo. police bu Wakhinane Nimzatt dakkal na ay ñawteef yoo xamante ne nag kii di agresseur bii di wuyoo ci turu Izo moo ko fa doon amal ca biir marché ba ak li ko wër la doon dugg di amal li ni mel suñu ay naataangoo ñu ko daal di xamle foofee sax la ko mujjee tegee loxo gannaaw ba police amalee ab patrouille. maanaam ba ñu duggee nag ca foofee di saytu. policier yu wax xidam Nimzaat dañu ko seen moom moom mi nga xamante ne moom mooy ISO mu yéeg ci ab moto ñu woo ko nag laaj ko li nga xamante ne moom mooy carte d'identité am ngir nag amal ab saytu ISO daal dee bañ ci saa si nag la daal dee woo ay xaritam ñoom ñi nga xamante ne dañuy dawal ay charrette ngir ñu ñëw xeex ak policier yi waaye nag ISO yemu ca ay saaga la jël di ko jagleel ñi nga xamante ne ñoom ñooy policier yi di xeex ak ñoom waaye nag police mujj nañu ko nag maîtriser laata ñu koy teg xamal waaye nag iso yemu ca gannaaw ba ñu ko defeeree bopp ba la jël daal di koy mbëkk ci giri cellule ba ñu ko denc en garde à vue loole nag mujj ko jural ay gaañu gaañu ca bopp ba iso ñaar fukki at ak ñeent la am defeere nañ ko ca parquet ba di ko toppee mbirum rébellion outrage à agent boo xamante ne nag dafa nekk di amal liggéeyam ñu nekk nag ay agent de police daan ya yemu ca toppee nañ ko nag li nga xamante ne moom mooy trouble ci ab poste de police maanaam nag indi ci li nga xamante ne moom mooy béréb boobu di police